asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ñu seetaan ñu ngi leen di nuyu di leen ziare bu baax a baax di ñaan suñu kàddu mu fekk leen ci jàmm ñu béglool tey ànd ak euh, ñi nga xam ne ñoo di daayira Sëriñ Tuubaa waaye di fédération bi ci wàccaayu bis bi nga xam ne moo di 18 safar àddina wërngal këpp di ko di ko waajal Argentine kenn ku nekk xam nga ni murid yi fi nekk yaakaar naa dina ràññee na seen pëseef ñu ngi ci liggéey boobu door nañ ko nag ñaari fan ci ginnaaw jot nañu dem ci ay daayira yoo xam ni dañu fay dem waxtaan ak ñoom ci waajaay gi nii ñu ngi ci daayira Serigne Saliou fii ci Lignes ngir nemmeeku si mbokk yi nga xam ñoom ñoo fi nekk soññante ak ñoom ci liggéey bi nga xam moo di 18 safar kon xam naa duñu guddal lool nga ak sëñ Yankoo ba mu ànd ak ñu am solo ñu ràññee sëñ Assane Baye Fall jiite daayira Mame Cheikh Ibrahima Fall sëñ ak it sëñ Talla Sall ñu fekk fii ñi nga xam ñoo di administration bi sëñ Bamba ak it ñi ñu fekk si sëñ Bamba Maroon ñu jaar leen bu baax sëñ bi kon rek ñu dellu si ci tey lan mooy sabab bopp Euh, caravane bi nga xam ne yéen ngi koy def ci wër li nga xam moom moo di daayira yi ak it euh, ñu am lu yees ci màggal gi muy lan tey defe naa fédération moom moo ko organisé ñu bëgg delluwaat kon ci leeral yi ci lu waral euh, tànk yi ngeen soxi ñëw ko ci daayira yi ak it programme màggal bi incha allah. asalaamaaleykum wa rahmatullah ñoo ngi siyaare mbokki taalibe yi ñu fekk ci barab bi yëpp eh, di leen jaajëfal tey siyaare sëñ Touba sëñ Gora Touba TV eh, tey balu àq di bale te ñaan saabaru yàlla bul nu jéggal waaw sëñ Gora noonu de suñuy tànk tey mooy niñ ko daan defee rek ci waxtu yi buñ ci tollee eh, saabu bisu ku tedd ki jubal rek daañu yëkkati suñu tànk dem ci mboolem daayira yi nga xam ne nekk na ci Buenos Aires ngir siyaar leen ngir lu ñu bokk ak liggéey sëñ Tuubaa bi nu yàlla boole ak it soññ leen ci bisub sëñ Tuubaa bi nga xam ne amuñu lu dul moom te sëñ bi wax ne foofu ñaar leen rek kii di ko fonk kii bañ koo fonk kii ko fonk du dañ di gis mukk lim téemi koo dul fonk ba faaw ñetteel ba muy loo xam ne daal bëgg nañ koo jàll ci daayira yëpp ñu di ko doxal muy di soññante ci suñ biir ci wàllu comportement bi nga xam ne war nañ koo amee muy yar ak teggin ndax sëñ Tuubaa dañoo jàngal loo xam ne doy na sëkk ak xam ak bind yoo xam ne saa bu nu xëy rek buñ ci delloo daañu xam nu ñuy doxalee ak suñu mbokk jullit yi waaye daañu xam ni ñuy doxalee suñu mbokki tubaab yi ñu fekk ci réew mi wala si jaala xusnil adabi yubqi jaxaalatan wa xuppi nazab teggin la sëñ Tuubaa wax ne mooy loo xam ne ku ko am dana nëbb ci yow sax ñàkk xam dana nëbb ci yow sag suufeeg askan mooy kon safaan bi mooy kon dana wane ne ku la gis nga am teggin dana dana ne kii de bari na xam-xam lool ku la gis nga am ne teggin dana ne kii de ci askan bu baax la bokk loolu nu bëgg nag fépp fu fi daayira ne ci réew mi dina dégg rek muy daayira yi nga xam ne yëpp aju nañ ci fédération bi toll ci ñeent fukki daayira ak ñaar muy ñi ne ci réew mi yëpp ñoo ngi yëkkati kàddu goo xam ne daal bépp daayira boo xam ne yaa ngi def daayira noo ngi sàkku ci yow saa bu yeggee yeggeetee nga soññ mbokki taalibe yi nga dajal foofa ci ñuy def comportement bu rafet su diggante tubaab bi yar ak teggin ak silvisé ndax am na saafatu minal iman seet ci gëm yàlla la bokk waaye yar melekaan woo xam ne wax dëgg yàlla rafetul jekkul bëgg nañ daal mu jeex ci suñu biir seet silvisé di def yëfi nit te respecté luwaay réew mi nga xam ne fekk nañ ko fi ndax boo demee ci réew fekk fa ay luwaa war ngaa fexe ba respecté luwaa ya bañ koo jalgati loolu daal moo doonoon suñuy tànk tey euh, ñu yemale suñuy kàddu foofu rek xam naa. waaw. waaw incha allah rabbi comme ni ko mbokk taal bi yëpp bëggee rek eh, bëgg nañu incha allah rabbi dañoo xamul nag dëkk tubaab bi moom takk ci ne di am autorisation ci première safar ndax weeru olof wu ñuy séentu la te booy déposé bis di ñaan autorisation faaw nga joxe bis te bis bi ñu koy séentu man nga koo xam waaye bis bi muy feeñ moom mënoo koo xam ba tax na bis bu mu ci mën doon daal daañu fexe ba ñëpp yëg ko incha allah loolu lu ci dolli ko la ñu dem ci plaza congresso bu ñu ko autorisé ñu dem foofu jàng fa ay xasida ak alquran defar ay soutien yoo xam ne dana xamle bisub bi Eh, tubaab yi ñëw itam xëy na soxla woo xam ndax mbirum sëñ tubaab moom ba yemee ci biir rek des na war nañu fexe ba incha allah ren réew mi yëpp xam ko mu gën a yaatu incha allah rabbi waaw tàmbali nañ ko ñoo ngi toll tey ci ñetti daayira fas nañ yéene incha allah rabbi wéyal loolu ba boo ne sayri jeex ba feneen fu mën a yegg ci réew mi nag bu ñu ko yàlla mandoo rek ba soobee suñu moom daañu fa yegg waaw sëñ Yankoba ñu bëgg ci moom sëñ Bamba mu mel ni tey yaa jiite daara sëñ Saaliw ku tudd sëriñ Saaliw tudd màggal gisoon taxawaay bu am solo bi nga xam ni moom la ci daan taxawee tey ngeen dalal ñi nga xam ñoom ñoo yore caravane bi bëgg nañu xam rek euh, position wala taxawaay bi nga xam ne moom la ci bu daara sëriñ Saaliw di di waajal. asalaamaaleykum wa rahmatullah mi ñu ngi leen di ziar bu baax baalu àq bu wér ginnaaw bi ñu leen baalee di ñaanal suñ seex Sidi Moxtaar Mbàkke mu gën a yàgg gën a wér at mboolem njabootu sëriñ Touba gi yëpp di ko ñaanal sëñ seex jëmb at mboolem xalifa seexub sëriñ Touba di ñaanal sëñ seex Ahmadou Mbàkke Saaliw mu gën a yàgg gën a wér moo raqam yu baax yi mu àndal yëpp di ziyaar sëñ bu baax jëwriñu jotaay bi comme noonu nga ko waxe sëñ góor rek ni ko sëñ Yanko bu waxee daanaka noonu rek la sababu liggéey bi moom e, defe naa ni lu lu lu lu booy ci nopp jàmbur ñëpp la loo xam ne rek daanaka sax duñ ci ne di baamtuwaat ndax ginnaaw ki ñu yaakaar àdduna ak àllaaxira moo ñu ne képp koo xam ni sa sama mbëg sa mbëg la ñëw leen santale ma yàlla ci bis bu tedd bii nga xam ni lépp lu ma doon wut sa sañu borom di ko jaarale ci e, ci ci ci yonent bi ci bis bi laa ko amee kon defe naa ni loolu rek dafa doy soññe kon war naa tax ñun ñëpp ñu gën a góorlu rek jàpp ci bis bi suñu kémtu lay kàttan ni ko jëwriñ yaa ngi ko waxee it defe naa bi ñu tàmbalee boobu ba léegi ñu ngi def ay caravane di dem ci daayira yi di soññu mbokk taalibe yi ngir fàttali leen ndax moom bis la boo xam ab murit du ko fàtte mukk waaye rek dellu laa fàtt fàttali kenn ku ci ne ci ñun rek ba mu gën a xam dayoog bis bi ni mu toll ci wàllu eh, taxawaay yëpp rek ni ko sëñ Saliou Mbacke ku tedd mm, mm, sañu yaakaar te ëllëg daan waxee eh, màggal gi moom jaamu yàlla la ak bernde jaamu yàlla gi nag mooy jàng alxuraan jàng xasida salaatu ala nabi eh, bernde gi nag moom na ko sëñ bi ci boppam tudde woon moom sëñ sëñ sëñ bu mag bi ku tedd ki dafa wax ni maanaam xeebu ci li ko dalee ci gill ci ginaar Eh, yéebu ci giléem kon jàpp naa ni loolu ni ko uh, ñi fi jaar ñëpp ñu baax ñi daan defee noonu rek lañ koy wootee te mooy bernde rek bernde nag kenn ku ci ne xam na ni ak àddiya moo koy def kon nag boo gisee ñuy soññante ci yu bari rek loolu rek moo ko sabab kon ñu ngi woo mbokku taalibe yëpp ñu gën a jàpp eh, gën a soññante sañu biir gën cee taxaw bu baax a baax daayira bi ñu ñëw nag muy daayira bi sëñ Saalib moom kenn ku ci ne xam na ni sañu borom dañoo dox dañoo dimbale ci tawféex goo xam ni mbooleem génération bii nga xam ni maanaam ñoo fi toog ñëpp at ñi fi nekkul eh, eh, moom lañu ñu eh, sëñ Touba tawféexal leen ñu ñu ñu bokk ak moom jamono. màggal gi nag kenn ku ci ne xam na ni amu ci woon sago moom sëñ Saaliw ndax kàddoom yi tedd yooyu sax buñ ko musaan dégg maanaam da daan fekk maanaam safar di waaj a teru mu mu mu joxe ci ay tettal yoom solo. ba noppi boole kaa gàmmu gi ci moom rek la ñu xamee eh, yëllay màggal dëgg dëgg dëgg ndax moom lañu dégg ni mu wax ñu ni fépp fu fi ñaar féete kenn ki gën kaa fonk moroom ma eh, morom ma du du noppee mukk di gis la ka morom ma di féete kaw mm-hmm. defe naa ni kon loolu lu yees pekk la ci moom it la ñu déggee kàddum yi tedd yooyu muy wax ni ñi nga xam ne daan nañ jàpp ci liggéeyub sëñ Tuubaa bii ci màggal gii bu ñu demee ba àjjana gee nga xam ni maanaam amul amuli weer amul amul amul amuli bis amul amuli at maanaam ku fa musa ku musaan a jàpp ci màggal gi rek xéwal ya dana la fekk ci àjjana ba mujj gi ñooñ waa àjjana dañ danañ laaj ñii xéwal yii di leen fekk si ana lu ko waral ñu ni ñii de ay jàmbaar lañ yoo xam ni bu màggalu sëñ Tuubaa gi a jot dañ ci daan def seeni kémt lay kàttan xéwal yooyu ñu daan def nag moom la leen sëñ bi faye fii ñu nekk wax na ni sax waa àjjana eh, bu bis ba dellu see la ñuy xam ni barab biñ nekk def nañ fi at ndax àjjana moom kenn ku ci ne xam na ni amul yu at amul yu wees kon nag defe naa ni loolu li may wax saa su ne rek li taarix di yàgg yàgg yàgg man de mosuma dégg ci ci taarix ñu askane la jàmbar joo joo xam ni ci yoonu sañu borom bi am na ni am na bis biir àjjana kon nag ñun murit war nañoo gën a xam li ñu yor lan la gën kaa fonk te gën a gën a góor góorlu gën a jàpp kon nag ñu ngi woo mboolem waa daayira bi jëwriñ sas bi yi nga xam ne moom la joxe xam nañ ñun ñëpp ni buñ ko nattee sañu digganteeg sëñ Touba rek dañuy wax sax ne yàlla bu ñu ci sëñ bi topp ndax xëy na day mel ni joxe desit mm-hmm. waaye nag war nañoo góor góorgóorlu kon bu baax a baax a baax ba ñun ñëpp ñu maasale ci sas bi te joxe ko nag ca fa mu jote fa mu jotee nag mooy kenn ku ci ne xam na ni màggal ki waa organisation bu màggal gi desee ay ay bés rek war nañoo tàmbale ndax réewu nasaraan si bokkul ak Sénégal war nañoo tàmbale def commande moo xam xar yi la moo xam de ndugg meeg yooyu yëpp ba ci saal bi nga xam ne rek suba suba suba war nañoo defi jéego ci ay barab yoo xam ne yu location la saal boo ci dem tey ji boo jubóog boroom rek war nga kaa jox señaa kon ñu ngi woo mbokku taalibe yëpp li ñu denc sëñ Tuubaa moom jaarut a xaar ba muy gën a sori nañ ko génne ci saa si dajale ko jéem kaa fexe jox fédération bi ba liggéey bi nga xam ni maanaam moom lañ leen jox te topp seen ginnaaw duñ ci am benn gàllankoor ñu ngi woo ñëpp nag te xam ni bopp jëwriñ yi ginnaaw altine yi dañoo war a daje ñu ngi sàq fépp foo xam ne rek sañu kàddu yegg na fa ginnaaw bu ñu leen ñaanalee mu fekk leen ci jàmm ñu ngi sàq jëwriñ ju ci ne nga gën a soññ sa mbooloo loo fa dajale nag bu ci xeeb dara lu mu néew mu bari rek nga fexe ba incha allah bu ñu dajee lëndeeg jàmm e, ñu yéwénal àddiyee jooju ngir ñu mën a e, tàmbale liggéey bi tey ñaan rek e, maanaam yàlla na sëñ Tuubaa nangal ñu sañu màggal yàlla na ñu boo yàlla yàlla yàlla bokk ca màngal ya mu nagu ndax lépp ci la ne ñu ngi jéggalu ci kàddu yi bu guddee xëy na di yamale foofu kàddu gi rek di baalu ñëpp àq nag wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa jërë ngeen jëf mbokki seetaankatu Touba Argentine TV loolu moo tukkee woon fii ci daayira bu Serigne Saliou am nañu yenn nag ànd ak yéen ci karawaan bi yëpp ak programme bi it ci ay palato waaye it ñi nga xam ne ñoo seq organisation yi kenn ku ne secteur ba ngi ci féete ñu dalal la ci nga leeral Touba Argentine TV am na yéene boobu leen sant bu baax di leen gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh